tuuru président Macky Sall ak gouvernement du Sénégal ñu ngi sant gouvernement Japon à travers JICA ak euh, euh, seen euh, ambassadeur bi nga xam ne moom moo leen teewal fii ci Ndakaaru ci machine yi nga xam ne dañ ko jëbal maanaam béykatu ceeb ci Sénégal matériel gis ngeen ne am nañu téeméer batteuse ak non téeméer décortiqueuse ak maanaam machine yi bojj ceeb ak Euh, maanaam juróom-ñaari fukk euh, machines yoo xam ne maanaam dañuy bàcc ceeb bi te loolu nag xam ngeen ni ci bale ak plateau yu Sénégal yi jigéen yi euh, dañ ko soxla lool ah, ñi béy ceeb yëpp mais rawatina jigéen yi donc loolu moo tax ñu ñu leen di gërëm di leen sant te xam ni en tout cas Sénégal président Macky limu li mooy ñu am suñu ñu moom suñu bopp ci affaire dundin Euh, ci mbéyum ceeb euh, ak dugub ak euh, maanaam béy dunde donc lii dina encourager suñu béykat yi ci ci ci ci maanaam tool yi xam nga ni léegi ceeb moom daaw am nañu production bu baax ci Kaffrine ba Casamance ci nawet bi ren aussi ñu ngi xaar lu mel noonu donc lii dina en tout cas gunge béykat yi encourager leen pour que ñu gën a sawar ci ci mbéyum ceeb. gis nga daaw bi mbas mi ñëwee président Macky Sall yëkkati na lu toll ci milliards pour ñu jënd ay moissonneuses ak batteuses pour vallée du Sénégal ak euh, vallée de l'Anambé matériels yu ndaw yi aussi nag baax na parce que gis nañ ci tournée bi daaw ba dem na Kaffrine Korsos yëpp gars yi ñu ngi béy ceeb donc ñooñu dañu soxla aussi ay machines naam soxluñu moissonneuses yu mag mais soxla nañu décortiqueuse soxla nañu batteuse. loolu moo tax gëm nañ ni programme bi dina renforcer suñu politique ci ci mbir boobu.